insisté ndax ba tey am na ñoo xam ne ñu ngi ci réew mi di dof dof lu daal di jàpp na yëf yi amul lu am la alors mu ngi noonu loolu dinañ ci ñëw ci kanam tuuti mais laataa loolu dañuy daal di ñëw léegi-léegi ñu jàll ci suñu rubrique euh, li woon démb alors euh, euh, Mbaye Babacar Sadikh. waaw bisimilah. soxna Fatka. ñoo mhm. lay jaajëfal bu baax macha allah rabbi di amaat mbégte di ñëwaat àndaat ak euh, yéen ginnaaw boo xamante ni am nañu ak bër ci lu toll ci ay bés boo xamante ni li ko waral muy njàmbal bi nga xamante ne ni am na ci réew mi ak ci addina bi yëpp macha allah rabbi boo xoolee ci jamono yàgg. Euh, ni ko borom xam-xam yi gëstoo ak ni ko seetloo ci ay jamono yu yàgg ba léegi euh, gis nañ ne téeméeri at yu nekk euh, lu demee ni mbas dana wàcc ci jamono comme na ko waykat bi waxee ne téeméeri at yu nekk ak mas faatu way topp yaag way moye ñëppay gis ne dund doomu aadama ñaare rek wamee téeméeri at ku sàggantul rek ak coppiku am ca kon la ñi nga xam ne dañuy dund lu ëpp téeméeri at ñaare léegi ci jamono soo ko dee seet mu néew boroom xam-xam yi takk ko ci ne téeméeri at yu nekk rek dina am mbas moo xamante ni ñaare mu wàcc ci àdduna di ko dalee ci mille trois cent vingt mille cinq cent vingt mille six cent vingt mille sept cent vingt mille huit cent vingt mille neuf cent vingt ba ci deux mille vingt seetlu nañ ne téeméeri at yu nekk dinañ gis mbas moo xamante ni day wàcc ci àdduna li ko dalee ci mille trois cent vingt ba deux nga gis ne mille trois cent vingt boobu nga xamante ni ci lañ tàmbalee euh, mbas mi wàccoon ci àddina moom la doon wax njambal mu ñuul mooy la peste noire euh, wàccoon ci ñi nga xamante ni ñoo nekkoon foofu ci Mongolie mu nekkoon feebar bu yéeme boo xamante ay bopp bu métti la daan doon ànd yaram yaramu tàng ak yaramu tayal bu yàggee yàgg ci yow dem ba sa làmmiñ lay jàpp weexal ko nga mel ni ku ñàkk deret ba mujjee gi saw yaram di am ay heure yoo xamante ni yu ñuul kukk lay doon nga xam ne boo musaana dem ba egg ci foofu soo moytuwul rek nga ñàkk sa bakkan moo taxoon ñu duggee ko njàmbal mu ñuul muy la peste noire mu faatoon lu bari ci kaw suuf buñ ci tegaatee ay at yu limu ba ñu eggaat ci mille cinq cent vingt amat beneen feebar boo xamante ni wàccat na ci adduna ñu naan ko la variole waaw ah, mu nekk ñu mën koo tuddee nàppati mu nekkoon feebar boo xamante ni moom it lëmbe woon na adduna ndax mu toll ci ñetti millions ak genn wàll ci ay nit ñàkkoon nañ ci seen bakkan ñetti million ak genn wàll eh, ci adduna bi gis ne kon ay mbas ak ay feebar yoo xamante ni yàgg na noo wàcc ci adduna daan faagaagal doomi adama yi ñu dem ba ci 1620 le 16 mars foofu ci États-Unis amaat tamit feebar bu fa wàccoon doonoon mbas gënoon metti nag ci fi ñuy wax Amérique du Nord moom tamit faat fa ay nit yu bare bare bare bare bare foofu ci Amérique biñ demee ba ci euh, am lu ñuy wax njàmbalu Marseille ñu naan ko la peste de Marseille le 25 mai la fa wàccoon nekkoon euh, mbas moo xamante ni moom it bokk na ci li ko tasoon ci àddina bi mooy gaal gu mag goo xamante ni daa sëfoon ay bal ay bali yëre euh, ay yére yu mel ni soie wala ay yëre yu mel ni walla witteen bal yooyu nga xamante ni li nga xamante ni moom moo di virus bi nekkoon ci ba bi mu wàccee foofu mu saaw ca réew ma moom tamit def dafa jaloore ji yaatoo yaatoo yaatu rey fa lu toll ci juróom ñeent fukki junni ci ay nit ak ci yeneen béréb yu bari biñ demee ba 1820 loolu nga xamante ni moom moo di choléra moom it doonoon mbas mu metti moo xamante ni wàccoon na ci àdduna euh, jóge woon ci pays asiatique yi am na sax ñu nekk ci réewu Chine foofu la jóge woon jaar fi nga xamante ni mooy réew Java ak Bornéo Euh, tas di saaw di saaw ba dëkk bu ñuy wax Thaïlande dem ba Thaïlande dem ba Arabie dem ba dëkk bu ñuy wax Syrie Syrie ba tere ci réew mu ñuy wax réew russe dëkk yooyu yëpp euh, choléra bi demoon na ba saaw fa ba moom lu toll ci ay fukki million walla lu ko jege wala lu ëpp ci ay nit moom rayoon na ko ñuy dem ba egsi ci 1920 1920 euh, nga xamante ni ci la njàmbal mi nga xamante ni moo daan jàpp tamit say xëtër wàccoon ñu naan ko la peste pneumonique wala sax am na ñu ko doon tuddee grippe espagnole moom tamit li ñuy wax tey di virus euh, sababoon ko mu nekkoon feebar bi nga xamante ni ci wàllu taarix jàpp nañ ne moo ëpp lu mu faagaagal ci ay doomu aadama ci àddina bi ndax lu toll ci walla lu ko ëpp ci cent millions euh, ci ay nit wàññi woon na luñ ci kaw suuf euh, peste boobu ku ne xam na ne egg si woon na fii ci réew mi di réewum senegal mu nekkoon feebar bu metti boo xamante ni lenn ci mag ñi fekkoon na leen fi euh, man mii sax sama sama maam nettali na ma ne ma papam ci pest boobu ci la dee maam biram dimu biram dimu moo jur sax maam mu ne ci peste boobu la dee moo tax moom euh, njabootul woon euh, ñetti doom rek la jot a am ay peste boobu moo ko yóbbu nga gis am na ci yeneen mag yoo xamante ni daloon na leen sax waaye wér na waaye sax moom nee na bu la mosaan a dal boo wéree tamit dalay lay bàyyil ay mandarga ay jeexintal nee na sa kanam daf am ay bën-bën sa yaram bi daf ko daan boobu metti lool ci ndax ci tubaab yi sax am na ci tubaab yi sax yoo xam ne ci bari euh, wax nañ ne peste boobu moom moo leen rey ba gis nga keroog bi ñuy waxtaan ci maam Ahmed Bara Ndiéguène bu Thiès gis nga peste boobu lu bari ci ay taalibeem biñ dee nga xam ne ku ci masaana de ñaare néeg bi nga nekkoon dañ ko daan taal ak wala say yëre ak lépp ñu dañ la daan sax ragala suul ngir bañ nga wàlle waaye sunu maam jooju nga xam ne waxtaanee woon nañ ko fi euh, ci taarix nee nañ daf daan jël ñi xam ne ñoo daan peste euh, buñ dee moom moo leen daan defar toppatoo leen denc leen te moom du ko wàll nga gis mag ñi pexe yi nga xamante ni ak euh, li nga xamante ni suñ borom dénkoon na leen ko ci ak kell ak ci xam-xam ak ci wéetal suñu borom ba suñu borom mayoon leen xam-xam mayoon leen loo xamante ni moo leen di aar ci lépp loo xamante nii rek mu ngi ci kaw suuf tey lore pes boobu metti woon lool ci réew mi daan nga dem ci dëkk yoo xam ne dafay raafal dëkk ba dañ faat ña nekk ci dëkk ba ñëpp dëkk ba raaf euh, mu nekkoon mbas mu metti woon tamit ci kaw suuf faatoon lu baree baree baree baree bare ci nit ñi ñuy dem ba egsi ci euh, deux mille vingt diggante di téeméeri at tey euh, mbas mu ñuy wax corona wàcc tamit ci àddina moom it tàmbali faagaagal lu bari ci doomi adama yi moo xam ci réew tugal yi la ñu fasante ko yi ba ci suñu réew yi ñu nekk euh, ñuy ñaan yàlla suñ borom yàlla na ko yàlla euh, teel a fànq bala muy mel ni ya nga xamante ni ñoo ko jiitu woon mu nekk mbas moo xamante ni nag ci jamono ndax ñaari jamono jamono mooy mooy diggante bi nit ki di dund loolu mooy jamono jamono ak addina ñu bari dañ koy jaawale ay jamono benn espace la mooy espace diggante bi nit ki di dund moo tax waykat ba ne jamono ku ko fekkee war caa def lu baax ngir dem nga lu ay rek sa gannaaw la nga gis ne ñaari boroom xam-xam yi ak ñi nga xamante ni euh, dañuy bàyyi xel ci suñu borom su mbas wàccee ci àdduna ñu ne ndax du nekkinu doomu aadama yi moo koy sabab ndax kullu shay'in bi sabab la dafa wax ne lépp lu am rek ci sabab la te bari na lu muy wax ne ñaare am na loo xamante nii day am ci yéen ñu ngi gongi ci seen sababu loxo ci seen loxo maanaam yéen a jëf luy tax ngeen am lu ni mel tey boo xoolee borom xam-xam yi ci ñuy waxtaan ci wàllu diine ak ci wàllu yàlla duñ deñ mukk di fàttali doomi aadama yi ne leen daal ñu tuubaat dellu ci suñu borom wéetalaat ko te jéggalu ko jéggalu ko ngir lii wàcc ci àdduna mbas la moo xamante ni boo xoolee ni jamono tëddee ci jamono ji ñu ne ci wàllu yu bari yoo xamante ni mi ngi xew ci àdduna te gënutoon te nga xam ne benn bu ci nekk daan na wàcc ci aw xeet yàlla alak woowa xeet génne leen ci jamono yooyu ci bari ñun boo xoolee ci suñu jamono am na ci mu mel ni rek yooyu yëpp kon buñ ko bàyyee xel tuubaat dellu ci suñu boroom ñaan ñaan mag mag ñi fi mag ñi fi bàyyee ko woon nga xam ne bàyyil nañ ñu fi ay ñaan yu bari yoo xamante ni mën nañuy aar bu ñu tuubee dellu ci suñu boroom jéggalu ko boole kook ñaan yàlla mën nañoo def boole kook suñu fajkat yi seenu njàmbarte ak seen xereñte ci lu ñuy digal ci wàllu moytandiku ak ci wàllu fàggandiku yooyu yëpp buñ ko boolee ak suñuy njiit li nga xamante ni ñu ngi koy teral ñu ngi koy tëral ci ay loyaan loyaan mooy stratégie ak ci ay pexe ngir ñu mucc ci yàlla suñu borom mën nañoo suturaal ba ñu mucc ci mbas mi nga xamante ni ñu ngi lëmbee kaw suuf ci jamono ji ñu toll ñu ñaan yàlla suñu borom rek mu jërëtawul yàlla na am ci ñun ñeewent xoole nu Seyduna Muhammad bañ ñoo topp te teggil nu mbas mi ci nu mu gën a gaawee ci daraja yonent yàlla Muhammad xanaa di jaajëfal mbokk yi bu baax a baax di xam ne tey tey di leen euh, digtal ne ñaan yi fi mag ñi bàyyi woon nan ko boole ak digal yi nu docteur yi jox ak pexe yi suñ ko defee rek yàlla mën na ñoo suturaal ci kàttan yàlla ak baaxam surtout loolu ñaan yi nga xamante ni mag ñi bàyyi woon nañ ko fi parce que euh, seet nañ euh, bon ci ci ci li ñuy li ñuy li ñuy dégg ci ci histoire ah jamono bu askan bi jaaxlee ci façon feebar yi ñoom itam daan nañ ci am taxawaay bu bu bu rëy rëy daanaka ba li ko daan jële fii ci réew mi sax mhm. en grande partie ñoom suñu mag yu baax yooyu léegi ci mhm. lañ ci lañ bokkoon en complicité ak avec la complicité aussi de ñi nga xamante ni ñooy suñu médecin yu xarañ yi nekk ci biir réew mi ñoom aussi ñu ngi leen di bàyyi xel baax ah Euh, mhm. personnel médical bi ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax suñu borom sàmm leen parce que ñu ngi si ay coono yu méttee méttee mais dafa am loo xamante ni tamit seetlu naa ko ci biir waxtaan bi mooy euh, chaque fois yii nii buy buy am euh, fële lay jógee ca ca kaw ci pays asiatique yi surtout fa lay jógee di wàcc si ba ba fii daanaka yi fi mbay Babacar lim lim waaw historiquement parlant yi nga fi lim yëpp foofu lay jógee di wàcc si ba fii am nañu àq daal <laughs> mais naa leen torop ci ci yooyu noonu ñuy def waaye nañu suñu borom saamu ba yi jóge fi rek incha allah. léegi nii. maanaam dégguñu ne loolu sonal na leen. xam nga. mais man su may wax pour pour ñun Sénégal damay wax benn affaire mbay suñu dëkk bi dafa tilim. mbay ñun ñi nekk ci dëkk bi sax dañoo tilim mbay. parce que dafa am yenn xeetu bakkaar yoo xam ne bu xësee ba commencé yow nga koy def en tant que nit day mhm. dem ba dootoo yëg yàlla quoi dootoo dootoo comme muy chrétien bi comme jullit bi comme je dis quoi de manière générale am na yenn day dem ba dootoo yëg yàlla mhm. sa bi nga waroon am sa diggante ak sa borom yëpp dafay dem mhm. léegi nag lépp looy def muy lu baax wala lu bon danga koy def si sa si sa au fur et à mesure du temps da dem ba tu t'enfonces dans un puits boo xamee ne que dootoo xam maanaam gouffre lay nekk quoi. Mm-hmm. lu ne mën na la cee fekk. Mm-hmm. ñun ci circonstance bi lañ toll. Mm-hmm. lenn rek moom wax nga ko tout à l'heure et encore une fois mooy loo xam ne man ma jeexalee dama ragal loolu quoi man ragal naa di toog koñ boo xam ne dañ daan nodd di fa daara yi ñu daan daje ci daara yi def kuréel chaque jeudi wala chaque kii di jàng xasida ñu d'accord bu kenn dajee ci mais au moins heure julli bu jotee. nañu na jumaa yu nodd quoi. Mhm. surtout. Mhm. wallahi dafa am solo nañ nañu nodd quoi nañu nodd. xam nga Serigne Cheikh Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum. yal na yàlla yokk ay leeram. mu mhm. mës a déglu waxtaanam mu ne aw xeet. aw xeet du ñu dañ mukk di def ay ñaawteef. yemuñu ci def ñaawteef yi de. waaye di ko di ko siiwal. di ko wane. di ko propager di ko maanaam dem ba di ko tiitaroo sax far mhm. da ngay xool ni internet bi di demee ak télé yi ak rajo yi su mhm. suñu suñu réew laa gis télé wala ab rajo nit def ñawteef ñu def ay émission wala ay dara yoo xam ne dañ naan ñi def ñawteef kaay leen wax ko mhm. loolu bi ma ko justifié waaw nga naan non dafa yéeme man bi ma ko déggee dama tiit te am na ku koy def ci ñoom bind naa ko message envoyé naa ko message doon ci waxtaan ak moom waaye tontu ma faale woo te li ma lay wax nii war na mat ay ñaari at ñetti at dama ci mës a te du ma deñ di ko wax waxu sëñ Cheikh boobu dama ci bàyyi xel mu ne réew du ñu deñ mukk di def ay ñaawteef di ko pande di ko siiwal lu dul ne xeet woowu dem nañ ba yàlla wàcce ci moom wàcce ci ñoom mbas ak i balaa ak i feebar loo mhm. xam ne seen maam yi leen jiitu woon xamuñu ko woon wax na lépp sëñ Cheikh tey ku yeeyoon sunu maam ne leen feebar bu nuy wax coronavirus dina ne la mooy doom luy coronavirus. Mhm. wallaahi nga ne leen mu ngi faagaagal ay junni junni doomi adama ci kaw suuf. Mhm. dina ne leen dina ne lu xew loo leen def. Oh, déglu laaj boobu rek. lu xew loo leen def. Mhm. loo leen def yàlla. kon yooyu dafa jaar yi xel ci jamono. waaye ñaare doole mu lor borom. conscient nañ ci maladie bi est ba léegi nit ñi bàyyi nañ xel mën a defaraat seen gis na mën nañ ne dafa mm. wàññeeku mm. mais ba tey mi ngi tas mm. euh, parce que des fois dem benn instance da xam gis ni ñii dañoo fàtte ni maladie bi mi ngi ci mi ngi ci réew mi que médical comme ni ñu ko waxee ñuy def tout pour xeex ko mais nit ñi est-ce que dugal seeni loxo tam pour loolu noonu ñu mën koo xeexandoo ñun ñëpp est-ce ah. ci jikko yi est-ce que jàppandoo tolloo nañ ci parce que ñu doon def lu ñaaw ba léegi ñu ngi di def ñi ñu ngi mm-hmm. Mm-hmm. mu jaaxal discours Macron moom bu njëkk ba dafa on s'en remet à Dieu mm-hmm. ñoom buñ demee ba yëf yi yëf yi jël ko xamatuñu mu lu ñu a def instant bi mooy on s'en remet à Dieu mu leer na ni kooku jaaxle na xam na ne leneen lu dul yàlla amul euh, italien bi lu mu wax Dieu sauve peuple benn jour wax dëgg yàlla fan yi yàggul dara xaw ma dëgg la xaw ma dëgg ko mhm. parce que internet bi li ñu ci dugal dafa bari mhm. mais dama gis benn texte def naa bu dul Espagne la war a doon Italie bu dul Espagne di Italie mhm. seen président xaw ma seen premier ministre moom laa lay wax moom benn texte bu mu bind dëgg yàlla texte bi ma ko liiree sama rongañ wàcc na nga xam ne ñii suñ demee bay bàyyi xel ci naan yàlla na nu yàlla wàllu oh, oh. ñu woo jullit ñëpp ñuy ñaan ak yëpp non sincèrement parlé bi ma ko nga xam ne gëmu mosuñoo gëm ay yàlla ak yooyu ñoom science lañ gëm wasalaam mm-hmm. mm-hmm. bu ñu ba mi jaaxal leen mm-hmm. te fi ñu toll ci doole nga xam ne set bu dee set la foofu la fekk baax doo dox ci mbedd bi ba for bant bu dee moyen la plateau médical yi ñu yor nga xam ne suñu réew yi ku fi feebar doon borom ndomba tànk wala kilifa wala doon borom barke sa xalaat mooy ñu jël la yóbbu la foofa buñ demee ba ñoom ñu toog jaaxle seen pexe jeex ba nu tàllal yàlla suñu seen i loxo waaw mbasamaa ñun ñu ne la pour cent musulmans. Mhm. en tout cas euh, rapidement Pathé. Mhm. ci yow bu góorgóorlu ci sa bopp quoi. loolu mhm. loolu la fi mu ne nii moom euh, jamono ji suñu borom euh, li li li xaw ma kan laa dégg mu koy wax keroog message nañu faalewuñu ko faalewuñu ko mu bippé ñu faalewuñu ko instant bi def ñoo appel direct nañ ci profité rek defaraat jikko yi xoolaat taxawaay gi ñu gën a xool suñu taxawaay ci biir euh, société bi ah et puis euh, Mbaye Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci li nga xamante ni indi woon nga ko jox la rendez-vous semaine prochaine incha allah. jërëjëf euh, FK di nuyu mbokki téléspectateur yëpp yu àndoon ñun Mamadou Ndiol Fall nekk foofu ci Italie. waa bitim réew ñu nekk foofu ñëpp sama xarit yeeg sama soppe yi nekk foofu mm-hmm. maa ngi ñaan yàlla suñu borom yal na leen yàlla musal ci daraja yonent yàlla Muhammad numéro docteur Mbaye Lo sama yaay jay na ma Fall maa ngi koy nuyu baax mm-hmm. nuyu Serigne ci ma xam Mbakol mm-hmm. ak euh, euh, Serigne Modou Makhtar Hakim Diop nekk foofu ci états moom it yal na yàlla sàmm ko moom jabatam barke yonent bi yàlla mi dara tawul daal yàlla na def jàmm ci réew mi ak ci àddina bi mbas mi fi ne mu am ci ñun ñeewent xoole ñu yonent bi bañ ñoo topp teggil ñu ko ci daraja yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Mbaye Babacar kàddu yi am na solo te yal na yàlla nangu ñaan incha allah dañuy daal di ñëw léegi léegi ñu jàll ci rubrique euh, dox dox bi <laughs>